nit. wala nit muy doxale ci àddunam. loolu moom la concerne non lañuy duggo rek xuus ak ci waxtaan bu baax baax kon waxtaanee assemblée nationale mo ñu soxal euh, c'était juste ben donc euh, euh, ouverture par rapport ak actualité bi euh Guèye l'original euh, kula xamone xamone xamoon la aussi ci kuréel politique benen waaye tey jii taxawal nga sa euh, kuréelu bopp waaye am ñoo euh, jàppane ci ñoom ngir gunge leen ci élection yi lan moo waral tànneef gu mel ba tax daal nga sóobu ci ci législative ñu jàpp ne assemblée bi ñu jaar yi ñu jaar jàll kat jàppas ne ne war nañoo am euh, assemblée bi ñu bëgg bi méngook ñun dëppale ñu ñun mën ñoo boole. waaw déjà di préciser rek. man j'ai un mouvement boo xam ne moo jiitu gëm sa bopp mooy jiitu Pastef sama mouvement ça fait quatorze ans mm. ñu nekk ci social mm. parce que ñun loolu la ñu gëm. je crois que loolu aussi moo indi jamono. ba ñu ànd ak gëm sa bopp. liggéey fa liggéey bu am solo. parce que ñun li ñu gëm gëm ko mooy que li fi nekkoon. war nañu mën a am lu gën a ñoŋ loolu. système bi fi nekkoon lan doon xeex. ànd ci ñëpp gis taxawaay bañ ci taxawaay. ñëpp gis aussi liggéey bañ ci liggéey. donc nag euh, euh, bu ñu demee ba l'ultime combat. que ki nga xamné ne euh, moo suñu njit jël décision pour xamné vraiment mon moko jël ñun amna no droit aussi taxaw delu waccé la ñu nekkoon. Mhm. je crois que lolu la té ñepp gis nañ ne aussi àddina du yag yag ba mu jël lu ñaaw diko tek ci deram. parce que mhm. on a vécu des moments extraordinaires. Mhm. on a combattu xeex la ñu waroon a xeex donc àddina nag noonu lay demee mhm. ànd day rafet mais tàggalikoo aussi day rafet je crois que ci loolu la ñu nekk mhm. man tey li ma gëm ba gëm mooy logique ba ma nekkoon ak mhm. cohérence constance ba ma nekkoon man moom lay prôné parce que du sama jëmm ji moo intéressé nit ñi parce que man ça fait treize ans quatorze ans je suis un député du peuple parce que fa ma dëkk ak ci Sénégal lepp loo xam ne mën nañ ci taxaw ngir askan bi ñu ngi koy def te loolu mooy rôle député. je crois que loolu la et bi ñu xoolee jàngat xool teg suñu coalition fële ci ACAPES muy le Sénégal d'abord. où en cinq jours on a rassemblé 34 départements. ay coordination yu ñëw. quatre départements yoo xam ne mënuñu woon egsi à cause nawet bi et cetera mais wax nañ ci micro yi ñëpp dégg je crois que euh, bi ñu toogee ba xool guddi gi aussi ñi nga xam ne ñoo yàgg di combat mooy ñi jiite réew mi déggante nañ déggante nañ avant ñuy dem ci ci ci bés boobu et que seen bébét mooy bu buñ sañoon tey ñu ànd te comme suñu bopp aussi wax naa ko ñoruñ ñun réew mi ñu ñor tey bu ñu joxee cinquante pour cent yi liggéey bi ñu jox ko jox ko exécutif cinquante pour cent bi des pour mu dox mooy que tey beneen tànk bi ñu jox ko ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi pour que affaire bi vraiment euh, liggéey bi bañ a taxaw ñun loolu lañ gëm. Mm-hmm. joxe nañ exécutif muy benn tànk joxe législative muy tant tank, Sénégal waaxu dox parce que nous ñi aussi par rapport à la situation de new york yàkkamte ñu. Mhm. man loolu gëm. Mhm. on a jugé nécessaire moo tax excès mu egsee le salle ba rek li tous les euh, euh, coordinateurs départementaux wax leen l'a donne, et ñoom ñëpp ils ont appris ils ont accepté aujourd'hui de soutenir la liste PASTEF parce que bëgguñu Dal, les doon am ci assemblée yi passé am surtout en réalité au lieu que assemblée nationale nekk une croix de transmission mu nekk goulon d'étranglement et loolu un tàddal de mi je crois que tenu quand même ci posture aujourd'hui il faut que les gens comprennent que les leaders politiques comprennent que le Sénégal est dans un tournant décisif et que toutes les compétences toutes les dignes de la

waaw <laughs> euh, donc euh, ñun suñu coalition sàmm sa nga c'est en tout cas c'est un bloc générationnel. Mhm. bi nga xam ni en tout cas le président Khalifa Babacar Sall par sa générosité. Mhm. en tout cas dox na ko ba mu mat mu teg ko ci loxol du mhm. maire de Dakar. mu and ko vraiment ak wa génération. la présidente Anta Babacar Ngom Bougane Gueye Dany président de Gëm bop bopp bokum euh and ko Pape Djibril Fall. Euh, ànd ko ak PUR euh, vraiment bu Seigne Moussafa qui euh, les représenté des Cheikh Tidiane Youm donc bloc générationnel bobu mo pour proposer ben alternative. Mhm. en tout cas depuis ni nga ko gisee ci campagne nous ñu ngi vraiment di campagne te ci intercoalition dama koy tambalé fi Dakar vraiment ñu jël le maire de anne belair Papo Meng. Mhm. muy Babacar Meng. Mhm. jiital ko mu ànd koog euh, d'autres maires ànd ko ku euh, donc le maire de Grand Dakar Jean Baptiste Diouf ànd koog ku mel Bamba Fall. ànd koog mm. aussi yenen responsable yo xam ne mm. nekk ci Dakar. Mm. ñu laaj wa Dakar vraiment c'est ni député c'est ni sept députés yi leen war a représenté. ñu tànn ay député ñu tànn ñu baña a quand même liste bo xamante xeyna xëy nek ci liste ba kenn xamu Euh, peut-être tout à l'heure ñu ngi wax ci le sous passif bo génne Abbas Fall do do mo sitel yenen yenen tour yo xamni ñu ngi ci le sept députés yi nga xamni war nañ fallu Dakar té ñi nga xamni vraiment askanu Dakar bëgg nañ leen fal doon nañ ñoo xamanteni ku ci nekk mën nga wax ni ci commune bii la dëkk. Mm-hmm. loolu bu ñu xam barab bi daal lañu doon. mu ngok bu ko loolu weesoo man mm-hmm. sama département di Kër Massar. ñu nekk en intercoalition ñun Kër Massar ñu war a votel jàmm ak njëriñ bu Amadou Ba. Mm. Géejawaay war a votel jàmm ak njëriñ bu Amadou Ba. Mm. Pikine war a votel takku wallu bu Macky Sall. Mm. noonu lañ koy defee Rufisque ñu am fa aussi sàmm sa kàddu. noonu lañ koy defee te aussi boo jëlee département bu mel ni Tamba. donc ñoom ñi nga xam ni ñoo fa nekk mu ngoog waaw opposition bi daje. décider ñun sàmm sa kàddu retirer suñu liste ñu concentré wu lépp jox ko jàmm ak njëriñ. loolu. mais est-ce que problème retard non parce que la communication elle est locale et mhm. heureusement que responsable locaux ñoo tok décider ko mhm. c'est pas une première mhm. def intercoalition euh, donc Yewwi ak Wallu mais toutes les façons euh, c'est pas parce que nous, ñun sàmm sa kàddu u taxaw dañoo dem ànd ak Macky Sall tey wala dañu dem ànd ak Amadou Ba. Mm-hmm. dañuy def intercoalition bu élection législative amee ku nekk dangay am sa groupe parlementaire. Mm-hmm. mais xëy na su dee question war nañ mën a mutualiser suñuy force pour aujourd'hui comme ni ko Ousmane ko doon waxee ne. Mm-hmm. assemblée kenn du ko jox euh, en tout cas ki nga xam ne moo fi teew danga koy jox ay députés yoo xam ne dañu koy contrôler. ce pouvoir de contrôle de l' assemblée nationale nañu ko jox opposition bi nga xam ne tey dérive yi nga xam ne commencé nañ ko gis. fii ci réew mi nga xam ne nga jox contre pouvoir mm. mais xëy na boo jëlee lépp nga teg ko ci loxo benn nit mm. euh, tout à l'heure mon frère yaa ngi doon wax ni justice mi ngi dox mm. mais un premier ministre man li ma koy ñaan mu mu xoolaat ni muy wax ak Sénégalais yi mu xoolaat ni muy wax ak peuple yi son dernier discours de Ziguinchor ku waxati lii tu vas pourrir en prison comme si lui il était le procureur comme si il était le juge comme il si il représentait l'administration pénitentiaire mu donc moom mooy tëj moom mooy tijji donc ce discours menaçant là nous du lier. est-ce que menace là aussi. Euh, mais bien sûr non menacé. les, li, li, ko waxati di nga dem prison menace la. du mm. donc nous, li est-ce que l'a aussi est-ce que hein? justement est-ce que waxu mais dangereux. <laughs> te l'intercoalition <laughs> l'intercoalition c'est mm-hmm. bis bu opposition bi majorité bi. Mm-hmm. nañu voté loi pour mm-hmm. les questions de l'armée nous génnee ko ci débat politique. mon premier ministre il n'est pas chef suprême des armées mhm. il n'est pas destinataire des bulletins de renseignement de l'armée donc warul toog ci meeting politique Il faut ko woon wax ci conseil interministériel mhm. mais ci meeting politique di wax des questions qui relèvent quand même de la sécurité de l'État mhm. donc il faut que aussi nous suñu ñaari stagiaires yi nga xam ni ngi euh, station euh, présidentielle la station primatoriale il faut que nous dendale leen député yoo xam ne am nañu expérience ñu former benn gouvernement boo xamante ne moom stagiaire <laughs> stagiaire ah. bi nekk stagiaire bi nga xam ni moo nekk station présidentielle ak bi nga xam ne moo nekk station ah, primatoriale waaw mais dañuy jàng Sonko moo ko wax ah, waaw mais dans l'administration Abdou dans l'administration aujourd'hui aujourd'hui dans l'administration man lépp lu ma wax dama koy assumer ma ni <laughs> dans l'administration c'est-à-dire que tey boo xoolee cursus su Ousmane Sonko xool cursus su Diomaye. Mhm. musuñu nekk chef de service ni ko Bougane di waxee. au fait musuñu am secrétaire quoi. Cela dit, que dans une administration, vous avez un agent, chef de service, chef de division, directeur, directeur général, ministre, aujourd'hui, parce que l'administration de la aussi, femme aérienne, ils ont été obligés. Ils ont été obligés. Est-ce que vous avez raison là depuis, pour changer la date Depuis 8 mois. Depuis 8 mois. Depuis Sénégal, indépendance, peut-être, il y a des gens qui ne connaissent pas. Depuis 8 mois. Ah, mais depuis 8 mois, l'Ogis pilotage a vu, mais Sénégal yi ñu ngi joy. aujourd'hui comme Nico dans sa lettre aujourd'hui quand le gouvernement fait même des efforts mhm. pour que ne serait-ce que payer les bourses, des étudiants aujourd'hui dans notre secteur le secteur des collectivités locales mhm. les agents sont en grève depuis deux ans mhm. l'État a dit que ko def dans le secteur social fait muy pour, secteur dans ce pays là parce que on a un état qui a fait sur le contrat par exemple sur l'usine de dessalement parce que dans ngay populisme un ministre vient sans même xam le contenu parce que Macky Sall signé pas si rek Pape Alé Niang jóg fële yuuxu ñu résilier contrat qu'est-ce qu'on a été obligé de faire hmm. dans tu ginnaaw ça, ça ba président mujj fa dem pour réparer erreur de xamni mom ministre mom mon def hmm. mani hmm. suñu mais la wax mais amuñu expérience. loolu moy deug le quand un premier ministre aujourd'hui même sur des dossiers étatiques tâtonne un régime qui tâtonne liñu wara def nak sénégalais li ma leen ñaan nañu jël adjoindre des députés yu expérimentés. ñu former un gouvernement avec des hommes yo xamante am nañu expérience en tout cas ñu jëmale parce que ñepp lolu lañu ñaan. opposition comme pouvoir boy Sénégal avancer. Mm-hmm. parce que réalité bi. Mm-hmm. li nga xamante mom ñun. Nous avons beaucoup hein. Nous nous doon sol équipe nationale nous, ñëpp ñoy bonne équipe. Mhm. mais le plus grand coup que nous l'équipe sénégalaise qu'on a reçu c'est un homme qui s'appelle Ousmane Sonko qui nous l'a administré moy sa fameuse déclaration pour ça que mettre en doute sur nos finances publiques. Mm. Conséquence aujourd'hui, le Sénégal n'a plus de crédibilité. Au niveau international, le Sénégal n'a plus ah, de signature. Au niveau... 181 milliards, 300 millions de, euh, qui Ni FMI, mais attends, dans quelles conditions levez ni, ni au FMI, ni au niveau de la Banque mondiale. Mm. Parce qu'effectivement, ces institutions-là sérieuses ne nous prennent pas au sérieux. Parce qu'effectivement, notre Premier ministre a fait une déclaration qui lui-même ne prend pas au sérieux notre administration fiscale. Mm. L'autre mooy dëgg. Mm-hmm. am na solo nañ ñëwaat ci yow Djibril Ndiaye yéen waa euh, kuréelu également euh, jotli kaddu askan wi yéen ci assemblée nationale lan ngeen fas yéene jotli réew mi. waaw euh, déjà damay. am na loo xam ne déjà foog ma taxaw ci. Mm-hmm. parce que j'invite quand même les Sénégalais. Mmh. pour euh, en tout cas ces élections législatives là. très mmh. xam dañu naan un peuple. Mm-hmm. n'a que les dirigeants qu'il mérite. et suñu borom dafa du soppe lenn ci askan. Mhm. Il askan bi ngi ci faudrait pas qu'on ait le complexe des noms ou bien des grands noms. Mhm. je fais partie des euh, gens qui ont pour moi, euh, pour le profil de Dakar j'ai le meilleur profil pour xamante aujourd'hui tête de liste Dakar mhm. très sincèrement déjà pour moi, quel que quel soit les profils de euh, les têtes de liste de Dakar déjà je suis un digne fils de Dakar parce que Dakar laa judo. recommandé gi la judo et j'invite encore toutes les têtes de liste nañu wax fi ñu juddoo ku juddoowul ku juddoowul Dakar les Ngoré di wax sànq. par rapport au choix. non non non non non non rejoindre ma kenn. je suis ah. en train carrément de du joxe sama orientation. autrement dit pour man képp ku bëgg nek nekk député Dakar parce que il faut que. ñu sank dafa wax lu mel non mi ngi koy wax sank bi nga naan sept députés yi xaw kenn nga ci xam xaw ma lan ak lan. non non non non non mom ay non la doon wax. Ah, mo ay noms mo tax sànq moo il faudrait pas que ñu dugg. sur le complexe des noms. Hmm parce que qui hmm. est ministre la. Hmm. simple. Hmm. C'est très simple donc loolu. pour moi baromètre. mais solo. Moi qui fait en tant que en tant que tête de département de Dakar. j'ai fait la dichotomie entre les deux. tête de liste nationale bi. de Dakar. Si vous bo tête de majoritaire pour Dakar da nga wara Dakar loolu laa gëm ndax mhm. war juddoo Dakar mhm. Dakar donc nga war comprendre nga war a xam lu wax les dix neuf communes mhm. nga war a xam carrément les dix neuf communes ba mu leer encore une fois ma ne la j'invite j'invite encore les Sénégalais képp ku bëgg a nekk képp ku bëgg a nekk député de Dakar? man dama bëgg a nekk député de Ndakaaru moo tax ma nekk de majoritaire de Dakar donc li ma intéressé c'est les 19 communes de Dakar je dis encore une fois toutes les têtes de liste nañu wane fu ñu juddoo ku juddoowul Ndakaaru

bu juddewul Dakar. ah mais mais mais Libanais yaa ngi judd Dakar. non j'ai bien man en fait xam man man booy débattre man fa man booy débattre man du question ping pong. Mhm. man dañu may déglu baax a baax. j'ai bien dit est-ce que Dakar war nañu ko jox Libanais bu juddewul Dakar gis nga leer laa wax. moo tax wax moo tax wax day egg moo tax ma ne ku may déglu rek damay déglu bay ma daaneel. xam nga donc dama Libanais bu juddee Dakar. xam nga comme loolu Libanais bu juddoo Liban war ko jox Dakar moo tax encore une ma ne sénégalais ndakaaruwaay képp ku nar a jox député ndakaaru ne la woon nañu nañu def benn euh, en tout cas lëy si tu peux l'organiser il faut le faire. Mm-hmm. toutes les télés de Dakar nous avons bulletin naissance. Mm-hmm. ou bien e, naissance. ah man je <laughs> déjà que je Dakar ah. pour que parce que. on dit mais est-ce que de ah, non ah. attention non attention. ce que pour DG. non attention c'est comprendre mais non est-ce que non cest non c'est que qui on dit hmm. majoritaire hmm. départementale départemental mooy yow da nga war nekk da nga war bokk ci département bi nga war teg pourquoi comme donc war a war a nekk ci bureau de vote bi nga war nekk nekk ci département bi pourquoi bi. Mm-hmm. donc ça montre encore une l'identité bi ñu war a jël comme référentiel. Mm-hmm. donc yooyu il faut que maintenant en fait xam nga démocratie avancé. Mm-hmm. xam nga tey boo xoolee tey suñu genre débat yi ñu def nii tey. mais il a dix ans amu fi woon. parce que ñun léegi dañu évoluer parce que ku nekk yaa wax da bëgg un mais un type député mais da mais da nga koy mais mais bu ñu ko bëggee tënk ci ñi dëkk juddoo Dakar Dakar gi kon dañ génn ñëpp de. non duñ génn ñëpp parce que man. <laughs> voilà moo tax ah man ah non ça dégg aussi moo tax man la man. Dakar c'est la capitale ñëpp ñoo ko bokk. non rek non ah. xaaral. na Djibi baax na baaxul baax na baaxul man recommandé laa juddoo la wax fu mu juddoo exemple simple la. man recommandé laa juddoo. man maa ngi jàngee école Bibi Ndiaye. waaw maa ngi amee lise lycée Mauritanie Fos. mais critères yi noonu bëgg a non même rek maa ngi amee bac lycée technique industrielle Mauritanie Fos. donc man li ma wax bu yëpp yëpp Dakar laa nekk. juddoo ma États-Unis ñoo laa ci Ndakaaru juddoo ma Fongolim ñoo laa ci Ndakaaru. mais non xam nga il faut qu'on soit ba ngeen xamee loolu yéen lébu ne bu leen jaay non il faut que non xam nga man man damay man damay dégager critère pour que Dakar non damay dégager critère pour que Dakar waay déjà xam lu ñu war tànn parce que moo tax man la du am dudul. Euh, njiit yu méngool mhm. man na dama bëgg nag si njiit yu war ah, méngool ban si njiit yu war méngool nañ ko teg ay critères parce que encore une fois mhm. du ñun les politiques mhm. ñun ñooy ñun ñun la ñuy tànn mais ñu ñu war tànn itamit il faut ñu jàppale leen pour ñu xam ni ñuy tànnee lu baax. mais mais amee député. juddoo Dakar di voté nag war a di voté Dakar ñoom xanaa xam nga man xam nga xam nga. xam xam nga xam nga en fait y a mille non pas candidat. ah non pas candidat mais je dis encore tu pas candidat je parle des candidats xam nga man li wax dafa leer. waaw mais dama ne boo bëggee wax ni. je pas d'électeur je parle de candidat waa mais lancé euh, un message les électeurs ne vont pas voter xaw non j'ai bien dit j'ai bien les les électeurs dakarois Je nga man sama wax dafa leer ah, j'ai bien dit parce que encore une fois moi il faut ngeen def la dichotomie entre les listes. Mhm. Lolo qui euh, naka Mbaye. Mhm. je vous invite sincèrement. Mhm. en tant qu'expert électoral. faites effort sur Dota yooyu. parce que Sénégal dañu jël a ci et aujourd'hui par exemple ku mel ni man parcours politique. man dama en 2007. je politique responsable responsable comité électoral. ci souffres ci base di jàng politique di jàng politique di jàng politique ba ba tey yàlla sutal ma nekk euh, ma maire mouvement ba tey xëy bés créé parti xëy bés nekk ci coalition xëy dem ba di porte sax la euh, naka la coalition pour euh, di porte la coalition déjà sa communication mhm. mais porte aussi la tête de liste de mhm. donc am nañu xam nañu déjà lu xam nañu déjà yenn jaar-jaar yi mhm. ñun nag bu ñu bëggee nag maintenant aujourd'hui indi ay modification parce que suñ dund ñun les politiques ñu ñoo fii ay ay réformes ñu wax yëpp aujourd'hui comme tey ñu mel ni ñun

encore une fois je parle de département département man man je suis même surpris par rapport à ce discours là parce que pour le moment, il faut que déjà donc département de Dakar électeurs aussi natif de Dakar c'est-à-dire qu'il y a une contradiction notoire par rapport à cela. Et aujourd'hui, la fonction de député, il n'y a pas de député de Dakar, ni de Fongolemi, ni de Fatik. Ce sont des députés du peuple man lima gëm ba gëm mais man nga nek natif de Dakar moi je suis lébou à 100% originaire de kii euh, euh, douze penc yi seen naa li maam sama maam sunu ñaari mami yi Son Thiaw la Maram Thiaw Mbor Thiaw Jaraaf ne daal mooy suma maam mais man nga dëkk ci dëkk te amuloo njëriñ dëkk ba mhm. adeet man je suis pas d'accord pas du tout aujourd'hui réclamer sa sa sa sa dakarité ou nu ñu ko mën a alors que amaloo njëriñ Dakar fa nga dëkk koñ ba sa amaloo fa njariñ mais tu peux pas li am solo ba am solo mooy que tey jii li ma gëm ba gëm mooy que ala kulli aline muy département de Dakar muy département de Koungheul de Saraya ñan fay fal nañu nekk ñoo xam ne ils vont représenter dignement le Sénégal en si biir assemblée nationale loolu am solo. Mm-hmm. parce que loolu nag bu ñu ci naree dugg nag. li ñuy njëkk def mooy que DGE. tey dañuy xoolaat ñëpp mooy que tey ñii di yeewoo dakaar rek il faut nga nekk natif de Dakar pour pouvoir voter à Dakar ñu tànn koo xam ne dafa juddoo Dakar pour moom mu nekk député Dakar ay député Dakar et dans la définition de député député Dakar n'existe pas c'est-à-dire que voilà booy jaar rek pour mën a àgg assemblée et boo duggee assemblée tu deviens un député du peuple donc je suis pas d'accord beneen bi mooy ko sànq reetaan naa Ngouda Ngouda def na benn argumentaire bu doy waar mais stagiaires yi ñoo fi jëlee les expérimentés stagiaires yi ñoo fi jëlee gars yi alors non déet sànq dafa dafa dafa traité sunu président ak premier ministre de stagiaire mais lii gën a doy waar mooy stagiaire yi moo fi jëlee gars yi waaw ñi am expérience <laughs> dëgg dëgg dëgg am ay ngandi maami secrétaire def fi ay ati at def fi façon politique ba jaar fa ne stagiaire yam fi jëlee nañu may stagiaire yooyu rek tuuti temps ñu liggéey réew mi et que liggéey réew mi man li ma gëm ba gëm mooy ku mel ni Ngouda ku mel nii Pape Djibril ñëpp war nañ ci ànd ku am compétence nan la ci boole mm-hmm. man loolu laa gëm mm-hmm. et laa doon préciser l'expert à c'est que député auparavant dara xew ci penc bi lañ koy rajee dañ naan la onze baay quoi diw bon baay dañ ko jëloon penc bu dee saalum ñu toog ci dàtt gi rek la problème mu jeex sénégal nag dañ ne ñëpp mënuñoo dajaloo benn place di wax ci luy doxal réew hmm. mi mbala ñu jiite réew mi bu ñu waree samp dara hmm. mënuñoo dajale ñëpp ñu ne ñu hmm. tànn lu ñuy wax ay ndawi réew mi Mm-hmm. ndaw réew mi la ñu tuddee ko jox leen tàkkante leen baat député mm-hmm. député nag ñooy dem ci péncum ndaw réew mi péncum ndaw réew mi foofu foofu la ñuy mm-hmm. foofu la ñuy wotee ay loi di fa proposer ay loi ñu mën a xool lu ñuy doxalee askan wi luy njiit réew mi di def ñu ne ko kat donc bu jaaree assemblée ñu càmbar ko yóbbu commission ñu càmbar ko def ko ay loi loolu nag ba buñ ko taxawalee pour mu am dañoo wax ne chaque lo chaque département. boo xam ne nii ci Sénégal dafa am lu ñu lee nattal. natt ki nag mu ngi dépendre ci nombre de population bu ñu lay jël mooy quota boo mën a am. dama lay jox juste exemple dak département de Dakar boo jël département de Dakar rek am na am na sept députés maanaam juróom juróom ñaari député. ak yeneen département ñu koy natt di ko natt ba léegi sax am beneen département boo xam ne gaa yaa ngi koy tudd mooy mooy kii. diaspora bi mhm. ñoom tamit ñu natta leen ay deputé boo hmm. boolee loolu muy 165 député ñoo ñu war a teewal ci pencum ndaw réew mi 165 hmm. député yooyu tey dañ leen la kat cinq yooyu wala da leen ñu wax député du peuple lañ leen wax député du peuple Pape Djibi comprendre naa bien lu mu la wax c'est un candidat. Hmm. ku nekk sur place mu nekkat man doomi Dakar la bëgg naa ki may wat ngeen tànnal ma loolu. voilà <laughs> loolu lay wax. taawun la <laughs> mais <laughs> ñu ne la kii moom lañ lay kii moom moom lañ leen natal ñu teg ko ci ñoom ñaari ñoom ay pouvoir yoo xam ne nii muy pouvoir exécutif ak pouvoir judiciaire ñoom ñaar foog ñu ànd ndax ñu mën a liggéey foog ñu ànd ndax ñu mën a liggéey boo xoolee au début defoon nañ expérience boo xam ne tey kuy jiite réew mi amul majorité indi na blocage ci biir assemblée nationale loolu ñëpp ko seetlu yóbbu na fi débat d'orientation ñu bañ a duñ ko wooteel dob bi mu yóbbu fi ñaar pour dindi fi ay ay ay ay institution ñu ne ko du ko fi amee moom jugé nañ nécessaire que ne président bi juré nañ nécessaire que ne foog mu dem comme falk askan moo ko fal à cinquante quatre virgule quelque chose pour ak ak ak lu topp pour cent pour mu mën a doxal liggéeyam mu ne moom il mu tas assemblée bu ko tasee dem ñooñam yi dem daabu baati askan bi ñu mm. mën a xool danañ am majorité boo xam ne mën nañoo doxal mbir mi loolu indi tas assemblée essayé nañ boo xamante opposition bu yoree pouvoir ndax mbir mi dana dox jàpp nañ ne mbir mi dox mbir mi bu opposition du amee majorité mbir mi doxul te expérience wan nañu ko boo xam ne ni tey yàggul ñëpp mën nañ koo seede parce que Sénégal yëpp mën nañ koo seede loolu moo tax nag gaa yi dem élection anticipée élection anticipée nag boo ko xoolee département yi bu génnee dafa am lu ñu wax liste liste nationale liste nationale nag moom boobu nag proportionnel la proportionnel mooy dañuy xool CIPFRA valablement exprimé ni ñu ko càmbate ñu ci xool diviser ko par nombre de places yu am nombre boo ko da nga am benn chiffre loolu la ñuy wax quotient électoral boobu nag ku ko am am nga benn boobu nag bu ñu ko ci pour national bi professionnel national ku ko am da ngay am benn député. Hmm. su ñu fàttaliku rek en deux mille vingt deux bii passe élection législative coefficient mu ngi nekkoon soixante et voix. loolu ko ko am kon ça veut dire que pour que am benn député ci boobu national nationale il faut Dakar Arena nga def ko 3 fois que bala quatre fois sax. kon su ma la dégg mooy. Ah. Eh, effet de mouvement yeeg euh, foule bi topp. Ah. loolu ça n'a rien à voir euh, avec coefficient bi co coefficient bi hmm. mujj bi ci lañ mën a basé maintenant boo xoolee benn coefficient moo fa xawoon a tuuti rek. Moi élection 2012 juste le président Macky Sall fallo au pouvoir bo mo nekkoon 32 696 mo moo nekkoon nga 2017 mu ñëw 55147 voix mo nekkoon coefficient électoral. Mm. moo tax coefficient am nekkul ben chiffre bo xam ne mën varier. Mm. en fonction des en en en fonction des des suffrages exprimés. do mm. day varier. day varier à tout taux de même taux de participation bi sax boo xoolee en 2017 amoon nañ 53 pour cent en 2012 2012 bu même 36 pour cent mais bii passé 46 pour cent ba coefficient di gudd bëri bëri noonu 51 bi 46 virgule 64 pour cent moo nekkoon taux de participation. Mm-hmm. moo tax population euh, candidat waroon ñu def tout de telle sorte que taux de participation bi ñu xool nu ñu koy defee mu. mu am doole mu am doole nit ñi mën nit ñi mën a dégg. Mm-hmm. ak tuuti en parce que nit ñaa ngi keneen aussi mu xaw a wàcc ah, par rapport ak législative bi. mën na ne maintenant tamit. Euh, ak juste ben bo communication bu daw rek. Hmm. bu communication bu hmm. lu bari dana mais bu communication comprendre te duñ ensuite lieu de saluer ministre de l'Intérieur ak directeur général des élections mu ngi def muy hmm. travail remarquable C'est C'est la première fois ci histoire politique du Sénégal élection jot ñu gënël la trans nombre d'hommes femmes voté. benn par benn fu mu ne nii tey Abdoulaye boo su ma la envoyé lien bi boo dugalee si numéro carte d'identité ma wax la yow fooy voté ndax yaa ngi ci fichier bala nekk ko ci fichier bi chaque jour mu ne nekk di souffrir ñu naan jotuma woon sama carte naa bu demee fekk fa seen carte électeur hmm. c'est à lieu de saluer général mais ñoo xam ne c'est l'ancien fichier bi la aussi l'enjeu fichier bi la aussi. parce que élection anticipée. bu amee mm. luñ même procédure procédure bi ñu demoon bii passé la ñuy mm. moo tax caution bi toll noonu. Mm. ñu ngi liggéey état bi ñu ngi liggéey tey appui am na benn discours boo xam ne déggatuma ko mu am te waxuñ ne ministre de l'intérieur far. loolu génne nañ ko ko doon juñ ci début ba waxtaan woon. am na benn ci gars yi ki ko doon wax dafa war a démissionner. du ma ko tudd nag. <laughs> comprendre nga <laughs> am nañ ay dama ne la à chaque fois. Sénégal am na si ay nit ñoo xam ne tey. ay fonctionnaires yoo xam ne ni tey ay ay nit de valeur lañ yoo xam ne ni tey ñu ngi leen jox ay ndomba tànk yoo xam ne ñu ngi liggéey seen liggéey boolewuñ ci wax ju bëri boolewuñ ci coow lu hmm. ñoo xam ne ni tey bu ñu ooy appel à la patrie dañ ciy jàpp général Tine la bokk Birame Sène bi DGE si la bokk hmm. hmm. ak ak Pape Djibril ak ñeneen ak Guèye bi ñëpp ak waa Sàmm Sa ñëpp si lañ bokk ñoo xam ne ni tey bu ñu ooy la patrie dañ def de telle que liggéey bu ñu leen samp ñu bañ ci am xaaj ak seen doxal ko de sorte que même sax information boo bëgg am ci élection yi dama bo boo ci site DG bi ñu ngi ko fa def. kon ça veut dire que né amutul dañ ma kar joxoñ ma sama nangam amutul lepp réglé na. lepp c'est vrai que ci campagne bi dégo fi ay coow yooyu da ay problème mu lu soxal ci organisation beeg ki koy yore nangam sangam. peut-être ñu ci si yeneen xam nga auparavant convoi kii la ñu doon attaqué. opposition bi. mais léegi convoi foofu à part au pouvoir la ñu attaqué. boo xam na fu ñu affaire bi changer na. ay cas cas isolé doom nga fiy gis élection yi gënoon a doon gën a gën a métti nii léegi nit ñi esprit ñu ngi jóg. Mm. esprit ñu ngi ñu ngi changé. Mm. nit ñi xam ne kat Sénégal moo ñu boole te ñë kenn ku ne da ngay jéem ut rek. boo boo ñu paree tamit dañ koy dajale pour Sénégal. Mm. kese kenn ku ne mën nga bokk foofar. uuti looy ut bu ñu paree dajale ko pour Sénégal. Sénégal moo ñor ñëpp ñu si toog nii ñëpp ñoo ko jot. defar réew mi à chaque fois damay dama si dikk ne Abdoulaye sa journal bi ñu lay jox boo ko defee te sorte ko mu baax yaa ngi dimbale président Bassirou Diomaye ci biir réew mi kii ñoom sàmm sa kàddu bu ñu defee ñoom seen kàddu sàmm ko ba mu normal def la telle sorte que ñu ngi dimbale ñoom ñoom ñoom honorable député ñoom affaire bi mu ngi dox affaire yi mën na dox maintenant am na benn kii bu mu glissé lii rek man moom président la république bu ñu ko falee ñoo ma ko tuddee loo ko tuddee nag bi kii loolu bi foofu biseul foofu <laughs> ko tuddee loolu <laughs> comprendre cinquante cent ñoo ñoo ko ñoo ko fal bañ na ko sax moom c'est la première fois nga gis un président de la République campagne am deful visite deful qui conseil des ministres décentralisé. Mm-hmm. seetuwul de mu ngi tok bir palais mbaa dem tukki. il paraît que tey yaa yaa eu conseil des ministres. tay conseil des ministres amna na. Mm-hmm. ça montre que l'administration continue. ça montre que l'administration continue boo demee. démissionné de son parti mm-hmm. voilà donne un militant simple demul campagne bàyyi. mais DG yu ak ministre bari bëri ñu ngi ci terrain de di campagne ah. kan si. Ah, ah, ah, gars déjà DG campagne. mais ay militant ñi war a liggéey dëgg. ah eh, kon kon yaa ngi liggéey. Ah. Ah. non nañu nañu rek li am. Ah, nañu encouragé li am. boobu boobu ngay dégg foofu mm-hmm. loolu moom bu ngi am. Mm-hmm. esprit bi nu mu ñëwee nii. Mm-hmm. dañ ko saluer kenn ku ne ñu respecté ko respecté kandaam respecté lisam xam ne rek comme nu ma koy waxee bu élection yi jeexee di 17 avril si ngoon bu ngeen képp ku mën sa am te buñ ko dajalee Sénégal lañ ko dajaleel bu ñu demee assemblée pencum ndaw yu réew mi lañ ko am. am na sol l'enjeu de l'heure ku am na de. Mm. war nañoo mën a voté benn voté assemblée nationale. Mm. taxawalaal suñu budget mm. bi. ñu am bu stable nit ñu mën a dem ko quoi ñu dem ci dem ci l' essentiel. Mm-hmm. waaw sàmm sa kàddu yéen euh, par rapport ak li ñu wax sànq ñu ngi koy soulever ci dakaar euh, parce que kenn ci yéen euh, d'ailleurs moo ci gën a am tur ku ci mel ne Barthélémy Dias au niveau de dakaar mu ngi koy wax sànq là aussi am ngeen ci vraiment interpellation par rapport ak Dakar enjeu yi aussi pour gagner la capitale. waaw d' abord euh, demander à mon frère Djibi sànq que ngi koy sànni xeer naan ko fi nga dugg baaxul euh, parce qu'au Sénégal nous sommes dans une république parce que vous bëggee dans chaque département kañu fa war a fal mu war fa juddoo xëy na suñu mbokk sénégalais yu juddoo ci diaspora bi da nga leen di génne ci liste législative donc man li may ñaan mooy nañ ko ci démocratie rek parce que même celui qui est né non sénégalais qui acquiert la nationalité sénégalaise selon le code de la famille il a les mêmes droits il a les mêmes devoirs les sénégalais qui sont dañ dañ koy dañuy damay ni da jël da ñoo euh, vraiment. non mais les plus grandes villes les plus grandes villes dans le monde. Mhm. Hidalgo est d'origine espagnole. Le maire de Londres est d'origine pakistanaise. Le maire euh, disons de le premier ministre canadien il est d'origine cubain le parti travaille au niveau de de l'Angleterre il a fait le démb noir là. donc sommes dans ci euh, monde globalisé aujourd'hui nous sommes ubbi donc Dakar tout à l'heure il wax dit. Euh, suñu grand Cheikh Gueye maire de Dieuppeul Derklé ma koy nuyu day faral di wax ni dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi moo ko gën tey ñëpp d'accord nañ ni kii di Barthélemy Dias di maire de Dakar liggéey na dakaar loo xam ni wax dëgg yàlla Dakar ku mu joxoñ wala fu mu joxoñ euh, donc euh, donc yaakaar naa ni kooku Dakar waaye kooku la ñuy fal mais may ñaan ci débat bi ñu koy teg en tout cas ci programme tout à l'heure euh, euh, donc monsieur Mbaye mi ngi doon wax ci wàllu cohabitation mais may may fàttali ni bu ñu defee une bonne chronologie Macky Sall bi ko fi yàlla jëlee dafa woo ay député wax leen il faut accompagner le régime bi nga xamante ne moo fi ne mais accompagner leen quand un premier ministre refuse ni ko conseil con ni ko euh, euh, donc constitution exigé mu dem def déclaration de politique générale defu ko nous ñu voter débat d'orientation budgétaire assemblée bi donc droit à pour que mu mu mu exécuter wu mais limay qui ñaan rek moy que ñu jël assemblée bi ñu jox l'opposition en tout cas une opposition responsable nous devons faire une cohabitation gis nañ eh, gars yi def vraiment euh, ba dégg sax kenn ci ñeen ku ne dañuy bloqué ak yeneen ak yeneen est-ce que vraiment. non non pour preuve. pour preuve waaw est-ce que loolu bi premier ministre demandé pour preuve bi premier ministre demandé de modifier le règlement intérieur de l'Assemblée. Hmm. mais majorité bi moo voté. Hmm. am na yeneen yoo xamante ne nañ en séance plénière le président quand il a euh, convoqué l'Assemblée en session extraordinaire. Hmm. tous les points qui sont à l'ordre du jour l'assemblée daf voter Mm-hmm. maintenant quand un premier ministre aussi cherche des arguments de campagne mais damay jàpp ni au fait argument de campagne a buñ ko ci top, mm-hmm. mais nous, quand même est gënu ñoo responsable bi nga xamante ni. Euh, lan nga argument de campagne là. argument de campagne moi, un premier ministre. yow la nga war a def defoo de ba pare bëgg wax assemblée mu def li mu c'est pas au premier ministre de dire à l'assemblée yow. defal débat d'orientation débat d'orientation budgétaire ba pare mosoo ñu def sama déclaration de patrimoine te d'ailleurs mosu ko def moom si hmm. s'il sete conformé li nga xamante ne man li ma gëm mooy bu fekkoon ne li mu waroon def def na ko man gëm naa ni député yii ñu ci bari ma xam leen. Hmm. dinañ accompagner régime bi en tout cas lépp lu ñëw dinañ ko voter. Hmm. lépp lu ñëw ñu waxtaanee ko mais Diomaye ba mu ba mu ba mu ubbee waxtaan ak président de l'Assemblée nationale ñu waxtaanee ko mais dañ ko def ñu ñëw ñu voter ko moo tax ma ni au tout est parti des erreurs de communication du Premier ministre. Parce que malheureusement, chaque fois mu wax c'est la catastrophe. il faut que mon mu xam ni ak interlocuteur am. mënoo am ay député du peuple yow mi nga yow yaay premier ministre exécutif nga leen di jox calendrier nan leen def leen li def def en tout cas bu ko jaarale won fim ko wara man gëm dina def dinañ voter débat d'orientation budgétaire té bu boobaa nañ ko mettre dans de bonnes euh, conditions. Guèye l'original déclaration de politique générale. Guèye l'original gis nañ ci euh, campagne bi ñu wax ci programme aussi am amal na solo askan bi té programme bi daf ci bokk suñuy valeur dañuy wax homosexualité nekkoon na fi ciow 2022 mais ci campagne bi euh, gis nañ ne vraiment dañ ko xaw occulter occulté. ñu ngi wax sànq question de de la sécurité par rapport ak day soxal armée bi loolu mu jàpp ne. Je pense qu'il y débat qui est posé au niveau de l'espace public qu'on question ci question socialité. est-ce que vraiment la question de la avons a campagne bi ci nous nous, de ni nous loi yi fay voté da loi qui fait organiser une société day réalités mais c'est une obligation. tey jii que tey jii loi yi ñuy voté muy nekk yoo xam ne ñun suñuy loi loo xam ne day refléter quand même ñun nu ñu xamee nu ñu tàmmee dundee tey gars yi peut-être dinañ def tuuti spéculation ci wàllu affaire homosexualité mais ñëpp xam nañ ne Sénégal et les autorités yàgg nañ ko wax muy ñi fi jógee muy ñi fi ne yëpp.

c'est des questions sensibles mais il y am a yeneen yu aussi. bah mais moi je suis d'accord. mais li ma le comprendre mooy que tey campagne bi vont nous ñu fësal affaire homosexualité dañ koy criminaliser etc mais les gens on a les gens les gens en ont débattu. ouais mais ñu dalal xel aussi. lan dans dara bu xel dalul du dalati. Mhm. dégg naa ñu ne woy premier ministre moo fi indi Mélenchon. c'est-à-dire que yooyu yëpp ay amalgame yu ñu indi la rek. Mhm. pour pouvoir capturer peut-être des voix. mais je crois que loolu baaxul li am solo ba am solo ñëpp wax nañ ko Sénégal fii góor jigéen mënu fi prospérer. Mhm. fa bokkul si suñu culture bokkul si suñuy valeur mhm. et bépp sénégalais nga nekk opposition nga nekk pouvoir da nga koy combattre. Mhm. kenn mënuñu imposer wala du ñu teg loo xam ne bokkul su ñun bokkul suñu diine diine dàq na ko. car loolu ay débat la débat politique politico politicienne pour pour pour animer la galerie man gëmuma loolu. man li ma gëm ba gëm mooy tey fal ay député nañu fal député yo xamné buñu bu assemblée sen manteau appartenance dañ koy bàyyi ci buntu bi dugg liggéey le Sénégal dama né Sénégal fi mu toll gis nga yenn guéguerre yi sax warna na ñak Sénégal fi mu tay. on a besoin de transformer ce pays et pour le faire il faut qu'il y ait une coordination bu entre l'exécutif et le législatif il le dit mm. moi je serais je serais d'accord pour que opposition